ñun dañuy jour dañoo toogal waxtaan ren moom nañ def le tout jël coupe du Sénégal bi parce mu ne nekk pour euh, nekk tranquille daal parce moom rek laa de moom desoon Sénégal maa lay wax keroog bi nga ñëwee Mbour parce que ma jël ko pour doog a man ma doo xam ne jël naa am am Sénégal yi jël naa ko ñu ñoom la ñoom lii la France waaw lii moom ñu ngi koy déjee victime yi la 15 juillet bi passé nii ñu dem ci monsieur toog ñu ñëpp def ko en famille ñaan ñaanal suñu mbokk yi joroon di génn àdduna bi passé nii loolu sant yàlla baax. dañuy sant yàlla rek comme ni ma la ko waxee woon keroog ah, ne woon naa bu am solo la ñuy football bu ñu intéressé nag mais si jàmm ak salaam parce que tey bi ngeen ñëwee gisoo leen ñu tëgg sax daa am lu ñu tënkoon mooy MPC day jël coupe bi waxoon naa la am na ñu mais ñun ñëpp ko bokk mais danañ leen jaalee coupe bi kon nag waa Mbour gépp dañ leen di jaalee coupe bi. lii rek lañ bëggoon jaaree leen coupe bi dañuy dem léegi jaaree leen coupe bi ci jàmm ak salaam waaw guddi guddi Mbour Bombardier moo ko waxoon te ñun dañuy ñibbi Mbour mais nag MPC day ñibbeeg kubam day leer.